may wax mooy dama sax euh, amuk mbetteel bi kilifa gu toll ni Mamadou Lamine Diallo te kilifa laa koy woowee ndax mag la te it defe naa ni moom du ab ignare di tubaab di wax ignare c'est pas un c'est un intellectuel nit ku jàng la ku am xam-xam ñu woo ko ci ab plateau defe naa ni am na yeneen yu am solo lool ci réew mi yu mu war a wax lu dul di jéem a dénigrer man sama jëmm ji ci participation bu ma participer ci dialogue national naan que moom du awma fa place ci gàttal daal su ma ko mënee résumer loolu nag ah engagement am la ndax nag wax dëgg yàlla xam nga boo nekk mënoo nekk ci réewum démocratie naan diw lu tax ngay wax lii amna droit wax lu ko neex ndax démocratie la en démocratie ku nekk da nga koy nangul mu wax la mu bëgg wax nga d'accord ak nga bañ ci d'accord waye xalaatu bopam mom la wax mom Mamadou Lamine Diallo tek ci man suma nekké citoyenne sénégalaise Sénégal yaro Sénégal maggé Sénégal am carte d'identité sénégalaise passeport sénégalais suma démé demee yeneen réew li ma am am tour dañu la chanteuse sénégalaise moom mu jël jugé ni man awma palaasu taxaw ci dialogue national bu ñu wone pour la nation ñu woote ko pour la nation pour les sénégalais pour toutes les forces vives de la nation moom am na droit bañ caa ñëw am na droit am opinion am na droit wax lu ko neex nangul naa ko ko waaye na ma bàyyi wax dëgg yàlla te xam ne manub citoyen laa am naa droit taxaw fu ma neex dem fu ma neex bokk ci lu ma neex rawatina bañ ma ca woowee ndax ñëwuma ca comme un cheveu dans la soupe dañ maa jox carte ma considéré ni man citoyenne neex dem fu ma neex bokk ci lu ma neex rawatina bañ ma ca woowee ndax ñëwuma ca comme un cheveu dans la soupe dañ maa jox carte ma considéré ni man citoyenne sénégalais laa dama ko waxee sénégalaise plutôt ma ñëw teg ci man bu ma dee jéggi sama réew dem ba yeneeni réew nee naa leen champ de Mali ak champ de Linguère bi tous les pays africains thème ren bi mooy paix sécurité cohésion sociale waaw bu ma ñëwee ñu woote man sama réew woote ab dialogue boo xam ni paix et cohésion la man ma ne du ma ca teew bu ma ca waxul sax war naa ca teew ndax citoyen bu ma doon na serait-ce pour déglu xam fii lan lañ fiy wax ndax li ñuy wax ci réew mi kat ñor na ma te war naa caa wax buñ ma ca interpellé rawatina nag léegi bañ ma ca interpellé ma di ca wax te man ba ma fa waxee la ma fa wax mooy ci français mooy ci wolof ñëpp dégg nañ ko te defe naa ni képp kuy nit kii nit laa wax nag waxuma koy leneen lu dul nit te ne ci réew mi saluer nga ko ndax société malheureusement ñaar ñoo fa nekk ñiy dégg ak ñi dul dégg ñiy ànd ak ñi dul ànd te defe naa ni la grande majorité saluer nañ ko ndax waxi citoyen bu responsable laa fa wax waxi citoyen bu xam réewam waxi citoyen bu bëgg réewam waxi citoyen boo xamante ni engagement ci réewam mosula am faay loolu mooy benn beneen bi it dañu war a arrêté di dénigrer artistes yi parce que moom su nee man du wax ak man xëy na dafa def ni rek man artiste laa que man awma foofu place mais foofu artistes yi dañ fa am place mais artistes yi ñoom ñooy apaisé su dëkk bi di tàngee bay nar a tàkk artist yi ñoo ñoo def musique pour apaiser les esprits il faut que les leaders apprennent à utiliser les artistes pour comme des vecteurs de communication dañu war utiliser les artistes comme des vecteurs communication. Il ne faut pas nous dénigrer artistes Les artistes sont des publics. ay amuseur public man en tout cas du ma amuseur public ndax amuseur public du ambassadrice bonne volonté au minimum cinq institutions ou presque onusiennes nga xam ne benn bu ci enquête de moralité un an xool yow la ndax sa moralité bi mën na taxaloog suñu image wala déet ndax nekkoo kuy def lu dëng doo dem barki dem boo njaay japon ak les japonais comment ils sont rigoureux nga signé fa ñu di la autoriser di la financer ngay tabax ko légui nak dañu wara respecter artistes yi xam ne mënuñu leen génn ci société bi ci artiste bu ko xam nak ta xam bopam te respecter bopam parce qu'il faut se respecter et se faire respecter il faut arrêter de vouloir dénigrer les gens maintenant nak mom amna liberté def lu ko neex wax lu ko neex xale xalaat lu ko neex mais moi je n'accepterai pas de travailler pendant plus de 30 ans de métier et de faire de la rigueur et de l'exigence mon credo et mon leitmotiv nit ça je ne le ferai pas et je l'accepterai pas maintenant vous m'avez posé la question sinon moi j'avais dit que c'était sans importance ça langage. cependant pour finir moi je vais inviter monsieur Mamadou Lamine Diallo a juste aller construire une salle de classe dans son quartier man loolu rek laa lay ñaan monsieur Diallo demal nga tabax benn salle de classe sa quartier man maa ngi dem tabax yi Pikine benn école waxuma salle de classe benn école en entier moom laa fay dem tabax tabax naa bi nekk école Tivaouane centre xale yi ak Estelle tamit man maa ko tabax Go Media un bâtiment de près de trois étages c'est moi cette femme avec qui vous voulez pas communiquer qui les fondé allez juste construire une salle de classe dans votre quartier. En ce moment-là, quand vous viendrez, je verrai si moi-même je pourrai discuter avec vous ou pas. C'est tout ce que j'avais. à